dafa kaawoo dafa kaawoo. benn tey bi tëddewoo. dafa kaawoo. ayca liif bu àggal sëñ Fallou. ñëwal nii. xale bu gaaw. ayca muy combat bu am solo comme niñ ko doon waxee sànq rek yaakaar naa combat bi rek doy na grand combat muy diggante xale bu gaaw bu àngal sëñ Fallou di champion di bërekat di mbër moo xam ne heure buy ñëw day mobilisé mais daje ki nga xam mooy xale bu gaaw di jóge jaxaaw di mbër moo xam ne nee naa ne heure bu ñëwee ci làmb day dikk su indi ay supporters yu mat sëkk yëngale stade bi ba mu yëngu mais bala sot rek dañuy bàyyi ki nga xam ne mooy xale bu gaaw mu nuyoo wax ak adversaire am xale bu gaaw nuyu nañ la. waaw maa lay fay di nuyu ñëpp fi teew xam nga kii na daa am xam ne maa ngi koy dégg mu wax boobu ba léegi dama koy xamal mu xam ko maa ngi dégg mu naan 3 combats laa bëre 3 bëre ma trois combats deux combats laa bëri kii jot nan ma xoon jël billaay walaay damay room yi ma war woon jël comédien ma ne bis baa ma kara daa am kii billaay walaay kara kan mooy comédien kii soo bëggee dégg dëgg kii ñu mu bëree ñu mu daan billaay walaay bu ñëwee làmb ja ñu mu daan ak ñu ko daan mun naa boole daal yooyu ñëpp xam nga mais li science la quoi fi nekk ñii boo ñu xaar seetaan xam boo ñëwee fi dama mën a wax gars xam lu ñu wax xam nga mais ñu ñii wax ñii yuuxoo di saaga loolu amul du respect fi ñu ne nag a ngi fi seen rakk a ngi fi seen yaay a lan lañ mën a xaar sa ak moom liif mi. kii damay xeex ak moom billaay wallaay bu taxee ma dóor mu daanu ci li may moom kara damay génn di compétir sa àll bi lii moom mooy moom lii. kii seeraan nga digganteem naay mi man la ñu mu ñu mu daan ak ñu ko daan mun naa leen booy daanee si benn tàkkusaan billaay walaay. lim bu àgg sëñ Fallou naa la. auzu billahi mina seytaani rajim ginnaaw bi ma jullee si yoon bi si di sant samay ñaari waajur di sant yàlla bu baax a baax di sant sama sëriñ sëriñ Abdou Karim Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi loolu tamit. di sant mafia angal sëñ Fallou bi yëpp mafia angal bi yëpp maa ngi leen di sant di nuyu waa Daaru Salaam yëpp ñu toog fii maa ngi leen di nuyu di la nuyu yow Kara di nuyu sama adversaire xale bu ndaw di la wax lii kaf la agré rek bu jeexee rek jeex na dégg naa nag lu mu wax bu baax mais ku wax ku xam xalifa xam ne xalifa du ragal keroog signature ba man maa ko yëngal ba mu yëngu te na ma ko yëngalee woon noonu laa ko yëngalee waatee tey ak fair play nag xale bu gaaw li ma lay xamal barki sëñ Abdou Karim mi ma yaakaar bu arbitre doxee suñu diggante man ak yow dinaa la duma dinaa la dan defal sa bopp bi damay xeex ak yow waa jaxaaw yëpp nañ def loolu sa bopp damay xeex ak yow du ma bëreeg yow ñeme nga samp jaaga xeexal ma billaahi wallaahi wa dafa am si lu ma jugee dafa am si defet bu ma jugee ñeme nga samp jaaga xeex xale bu gaaw kara kii ñi ma bëree bëréewul ak ñoom sànq ba wax kii ñi ma bëree bëréewul ak ñoom cinq combats benn defet moom trois combats la la dama ko xam bu baax Baara Ndiaye dama laa xam bu baax a baax a baax. am na si li ngeen diggante kaay nit waxal mu wax. billa billaahi wallaahi wa taalaahi musuma wat ci lamb mais lamb ji damay wat. Eh, ci mais booy mi ngi ñàngal de. ci kattanu yàlla ci kattanu yàlla ak baaxam. kii dinaa ko duma dinaa ko daan dinaa ko daan jël boo xamante ni mus sa am njaw ma kodd te foofu maa la fa gën a miin foofu maa la fa gën a miin dama faa bëree deux fois yow musoo faa bëree. kii lan la la i xala ma Kara xala may wax ji. anu si nii anu si bu kii dafa ragal jege ma nga jàkkaaroog man man ngay waxal. Kara rek jege ma. moom mi ngi wër laajte ay ay ay loolu daw sama yaram. kapet kii teel naa laajte sa tur de. loolu daa ba doomu séeréer la loolu yëngalu ma di sant sama waa dëkk di woo sama waa dëkk waa Morona di leen du ma waa jaxaw caa yëpp kara andu si nii andu si nii bu baax damaa bëgg mu xam ni deux benn combat arène laa bëree benn combat simple yaa may dégg kii da mooy wër fi di combattre pam mbéy mi muy dëgg laam ji laam ñu ñu ñëwaat micro bu ma demee damaa fekk les fees poids lourd laa bëri kii daa ma pat kii kii kanamam bu leer maa day xeex kanamam bi dina xeex kii mel kii mel ni mën a kay mën a day xeex kii billaay wala kara jour baa ngay xam ma ngaa samp école Samba Diaw laa jógee si dóor mu daanu yar si si ñam bu soobee yàlla dina si ñam bu soobee yàlla dina si ñam. Kara kii dama bëgg nga xamal ko ni mi ngi naan damaa compété si ay mbapat xamal ko ne lamb ji du lamb mbapat waxoon naa ko dama ko kay waxaat lamb ji la ñu wax na dëggal boppam boo dof loo ba ma dóor la nga def fi quatre appels xamal ne lamb ji na te boo jugee fii bu yeboo nga wuti protestant barki sëñ Fallou mi ma yaakaar dinaa la duma dinaa la daan damay xeex ak yow par force xale bu wallaahi xale bu ndaw la ci Serigne Touba. billaahi dama lay daan dama lay duma dama lay daan. billaahi dama lay daan maa la mën maa la mën maa la ëpp doole. barki Serigne Fallou dama lay duma daan. ci kattanu yàlla dama lay daan. Eh, mais kii dis ngi day comédien nga gis kuy bëree bëree doo du son partisan lu may wax ni si comédien baa ngi kii day comédien kii billaay wallaay kala bis baa ngay comprendre kii laa kii gisoo ko soo xeexee ma duma soo bëree ma daan la soo xeexee ma duma soo bëree ma daan la kara kii xeexee ma duma ko su ma daan ko kii ñamewu ma dama bëgg mu may xool eh dama bëgg nga xëppi sa bëri nga xool ma yow tapet nga eh tapet nga woote leen. laa ko bëgg a xamal ah. abaasam. maa la loo maa la lans. dimbali nga déglu maa la loo maa la lans dinaa la duma dinaa la daan li ma bëgg nga def ko sa bopp bi xam nga mooy lan. su arbitre doxee arbitre buy wàcce loxoom ma lay dugal kuu bu arbitre sifflé ma duma la daan la. woote woote la bilaahi. yow xam nga ma lu ma mës a wax si laa def naa ko. lamb ji nag dafa am lu ma jugee moo tax nga yeb ma quoi mais yow si yow mii nii si yow mii si yow mii laay bëggalee samay supporters si yow mii laay bëggalee waa mafia nga sëñ Fallou yëpp dinaa la dumal naa la daan wooteel yow laax nga laax nga soobi rek moo des wooteel wooteel ñi lay jàppale ak say supporters waaw Kara maa ngi woo waa anga sëñ Fallou yëpp di leen wax seen doom seen mag seen raq mooy bëre muy xalifa dafa wër si dëkk bi yëpp di laajte sama tur lii naan tungu ne du teew ñuy nataal xalifa laa tudd sama sant nag dama nga laajte ji ko mais xalifa laa tudd dégg nga ah? kara maa ngi woo waa jaxee murit maa ngi leen di woo yéen ñëpp di wo see Ibra Touré di wo Khadim Touré maa ngi koy mu japp si ji di wo Sidi Gadiaga di wo Bass Touré maa ngi koy mu japp salam ji di woo waa état Sumburaat kebe yeb di len wax genn len ngeen def comme da ngeen dan def rek mais lamb ji inshallah rabbi ci katanu yalla billahi duma len joylo billahi duma len joylo dina ko duma dina ko dan di wo dam sen borom amerique maa koy mu japp salam ji di wo Habib kan yaa ngi dégg maa ngi woo Habib Kane bu baax a baax a baax mu ñëw jàpp si làmb ji di woo Assane maa ngi leen di woo bu baax a baax a baax di woo di woo Kara làmb ji ñu ma war a woo dafa bari de bee paase woote wu moom rek moo woote Kara maa ngi woo Mouhamed Sène maa ngi koy woo bu baax a baax Mouhamed Sène te ci kattanu yàlla drapeau bi maa ko jël yow lañ ko tuddee mais maa koy jël bu soobee yàlla dina ko andi sa kër ci kattanu yàlla gis naa ni ngay taxawoo waa bu baax ni ngay taxawoo waa Egolon di ko taxawoo waa Bayal dama bëgg nag nga jàppale ma jëndal ma bologu billet ma séddale ko sama boy yi waaw yow moom borom baax nga maa ngi woo tamit Gilbert maa ngi koy woo mu jàpp si làmb ji bu baax a baax di woo Amet Mbaye Mouhamed Mbaye maa ngi koy woo mu jàpp si làmb ji bu baax Njaga Jaw maa ngi koy woo mu jàpp si combat bi di woo Habib kan Habib Kane maa ngi koy woo baax a baax mu jàpp si làmb ji xale bu ndaw li ma lay wax lu tuuti la te bariwul mooy sama dernier mot bu may wax ak yow bu sobe yalla na nga xam am nga combat jaajëf parce que ci defet la jugué dé te samay supporter yabuma len ba di len joxat defet jaajëf bi moy sa nga ni deux combat nga am deux combat deux defet ci yalla le premier inshallah rabbi ma mooy sa troisième défaite ma duma la daan la mu lay neex di la naqari dama la koy wax dinaa la duma dinaa la daan ni may wax ak yow nii noonu laay xeex ak yow bu soobee yàlla damay sant sama gars àndal yëpp xam nga ku si mel ne ñoom bébé liiru 500 fondé Babacar Faye l'enfant de Thiès ñoom Siteu di ñaanal sama doomu ndey 500 fond yàlla na ko yàlla may ndam di woo nag suma waa dëkk bu baax waa Morlan xam nga di woo waa Fulun waa Jaasa waa Jaxaw Caal yëpp école Louga Samba Diaw bàyyi ma kenn Kara billaay wallaay boo dem ciblé yow mu ne Kara mënoo ko comprendre xam nga di ko wax na ñu ma àndal su am ñu respect su nekkee dañuy wax respect dañuy wax luy respect fii ay maga fi toog xam nga mais ñuy wax seen wax yi seen xale yi mel ni ñu mel ni ñu jëwee di Kaawo. Kaawo. dafa Kaawo. dafa Kaawo. dafa Kaawo.